Elhadji Daouda Faye Vava footballeur bu mak la won, don si Vava mi mu Munekon, bopam mu nekkoon ku football jamonoy Pelé ci équipe bu Brésil jiite won fi Afrika mère Scat Urbam ak comité d'organisation Coupe d'Afrique des Nations ñu tuddé won ko Sénégal 92 Vava bokk na ci ñi sos football club Bokon na itam ci bureau bu AS Les de Dakar mi ngi dugg ci gouvernement jamonoy président Abdoulaye Wade bañ ko dioré, jëwriñ tàggat yaram lu ko jitu nak amalon na lamb stade Léopold Sédar Senghor Digente Mohamed Ndaw Tyson ak Manga 2 roi des arènes ci jamono mu joxone len ku nek caché bu ci million ci Sousefa, Mudon mu don ab euh, ci Sénégal doomu kaolak bi député de assemblée nationale ak vice président bu Sénat jité won na fédération sénégalaise bu football vava ñiko xam ñep seede nañu né woon te di taxaw si ñu dund yegg ci juróom-ñaar fukki ak juróom-ñett nag teewul woon vava lu baax rek la bëggoon si liggéey wante daf ci daan wone fulla gu mat sëkk ba am sax ñu doon jàpp ne dafa tàng wante nag bu bule caractère mu boole woon kaak yeneen moo ko may lépp lu mu sumboon mu am ci ndam waral turam tey ci wàllu tàggat yaram kenn mënta wax te doo ko ci tudd ñu mën cee joxoñ liggéey bu rafet te mucc ayib bi mu def ci commité de gestion bi mujjee doon fédération camarade de la woon doon na itam bind ndax ci atum 2013 daal dinay xalaat ci naka la ñuy def ba saafara fitna yi am ci Afrique te jaaree ko ci jaloog di waxtaan ci livre boobule mu daal di ciy fësal ay yoon yu ñu mën a aw ba waxtaan bu ko defee réeroo yi am ci Afrique ci diggante yenn njiit yi ñu daal di koy mën a saafara